alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma a'taa wa lahu ma akhadha kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna di jaale suñ bopp di jaale Medina yëpp xadrati cheikh di jaale tilamidati cheikh taalibay bàyyi fu ñu mën a nekk ci ci àddina sëriñ daara Abdullahi Rabbani nga xam ne kum jëriñut mubasharatan ci jàngale alquran fii jëriñ na la ndax jiite na la julli taraaweex ba sonn loo xam ne ni ca jamono bàyyi la ko commencé wutu ci baayam gannaaw bu fi rabbaani jógee ba rabbaani neewee doole sax loolu ñu ñu ngi koy fekkee ndax bi ñuy nekk ci daara ji fekk na boobu rabbaani mu ngi dund mu ngi néew doole nag Abdullahi ak Ahmad Mahmoud magam ñoom ñoo doon awante jàngale ci daara ji bu Abdullahi ñëwee weeru koor ba gàmmu mu dem buy dem dana am ñu yóbbaale mu Ahmad Mahmoud ñëw gàmm ba weeru koor mooy buy dem dana am ñu mu yóbbaale ku sa àll sori rek léeg-léeg dañ la fi naye bàyyi yóbbu la kon nit la koo xam ne dundam yëpp ci jàngale alquran la ko def waaye jàngale alquran koo xam ne jàngaleel jàngaleel bàyyi kon bëri na fi ñoo xam ne tey jii ay asharaat ay mi'aat yu bëree bëri ñu xam ñu mën a tudd ak ñu mënta tudd ñoo xam ne jaar nañ ci seen loxo ku la wax ci daara ji ne Ahmad Mahmoud mooma taril wala moom a taril du tere na ñoom ñaar ñoom ñoo def ci yow ndax kii mooy jàngale juróom benn weer dem kii jàngale juróom benn weer dem ñuy ñëpp ci loxoom lañ mottalee alquran moo tax euh, nit la koo xam ne ku bëgg xam-xam la ku ittewoo xam-xam la euh, xoolutoon kenn lu may bàyyam mi nga xam ne nii ci mag ñi la te mbëggeelam ci baay ku nekk xam na fi mu toll rabbaani ku ko xamutim dégg nga ko ak na ci mbëggeeli baay fu sore sore sori dem na ba toog na ba si tëbaski tim yàppam bu ko rek mu xalaat ñu ne bàyyi ca minan daal ci tàngooroo ma toog fii di di noos daal loolu la mu waxoon wa umniyatu rabbaani maa kaana kaa'inan mahabbatu ibrahima wa intahatil munaa rabbaani lu mu mën a bëgg te ci kanam bàyyi la doon waxee li zil aqli wa nafsi salimi min al wana munan maa tawaana fi hanawaha wa dansana wa umniyatu rabbaani maa kaana kaainan mahabatu ibrahima wa intahat il muna tamakkana min sawdaai qalbi jibilatan hawaahu anni lansana maa tamakkana mu ne borom xel wu nekk am na xanaa mooy borom xel moom war naa am soxla boo xam ne du ko wëtteeg dara rabbaani nag soxla yi liñ bëri bëri benn la ci am mooy mu mu bëgg bàyyi rek wax ji jeex bëgg bàyyi rek wax ji jeex mbëggeel googu jàppandi na ci xolom kooku mooy jur Abdoulaye mi mu ñëw uutu baayam ci liggéey boobu nga xam ne ki fi njëkk a nekk sëriñ daara ci waa Mauritanie Mouhamed Lamine Jëkkani mi ngi doon jàng leetaram nii moo nekkoon na fi ki jàngale moo njëkk taril nit fii ci alquran mooy Abdul Wahab am na beneen sëriñ daara bu ñu daw Abdourahman bil bii di gannaaw rabbaani ñëw rabbaani ba mu fi jógee ma ne ñoo Abdoulaye uutu ko ci loolu uutu ko ci jàngale alquran uutu ko ci naafila bàyyi gërëm seen liggéey ci jamonoom seen taxawaay ci alxuraan ci loolu la dund ba ci mujj ak dundam gii nii waxtu waa giseen Abdoulaye ak lim yàgg ci xam-xam ak lim yàgg ci àndoo ci yàlla yépp waxtu wu nekk mu ngi soxlawalu bees lettre bii nañ ko tasee xasida bi nañ ko tasee loolu rek moo doon dundam kon dund na ci yàlla dund bu tey ndax dund na juróom-ñeent fukki ak juróom-benn lépp ci yàlla la ko dund àndoo ci yàlla liggéeyal ci yàlla bu fekkee nag eh, eh, Abu Yazid al-Bastami ku ko faraloon rek ab Euh, yaram mooy wax ne malaaka yi baleen ma man taalibe Abu Yazid la kon nag Abdoulaye mi nga xam ne at yooyu yëpp mu ngi ko def ci àndoo ci ànd ak baay liggéeyal ko xidma ko tim ci li nga xam ne mooy li gën a màgg mooy xidmatul quran mi nga xamee ne bu alquran amee jàmm lislaam am jàmm bu alquran amul jàmm lislaam du am jàmm moo tax it yàlla jagleel na ko jël na ko ci weer wi nga xam ne weeru alquran la weeru euh, rahma la maxfira la itqu min annaar ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala uh, yataxammaduhu fasiha jannatihi askunuhu maa cheikh maa annabi sallallahu alayhi wa sallam bi ala alina abqi barakatahu fi iyaalihi uh, yubarik fiha jamian wa yuajiruna wa yuajirukum fi musibatihi allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam